yi mbokki téléspectateur Touba TV mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo beeg ziar bi ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général de Mourides ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér ñaanal yi tamit jëwrin yi nga xamante ni moom la dénk liggéey bi te bu ñu tuddee Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mu mën a yóbbaale jëwrin yëpp ñu am mbégte nag tey jii ci fii ci Massalikul Jinaan ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre incha allah ñu fas yéene dala barab bu sell bu tedd bi ngir loolu nag ak waajal ko ñu fas yéene tey jii ci Touba TV lancé li nga xamante ni moom mooy compte à rebours du jour J moins 30 incha allah ngir loolu nag ak marqué événement bi ñu fas yéene ci dalal jëwrin Alaaji Mbàkke yu fay di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te félicité ko aussi ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom la taxawee réaliser ko te defal ko yoonu murit te àdduna sépp yi tamit di ko rafet jëwrin ñu ngi lay nuyu di am mbégte yi tamit ci nangul gi nga ñu nangul jotaay bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi ñu dugg ci waxtaan bi maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yëpp di nuyu mbokk taalibe yëpp waaye di jiital ci suñu nuyo ab ziyaar di ko jawal ci cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir di njiitu yoon wi di xalif général des Mourides di ñaan sama borom yàggal ko fi wéral ko kattanal ko ba li mu naan lépp mu sottee ci kanamam Eh, ak njabotuk Serigne Touba gi mako andal. di nuyu tamit ki nga xamni mo yor cadeau muy Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xamni ñun la bolé lon liggéey bi ñu nek fi ci jumaa ji di ko fi taxawal di don ay bëtam ak tankam ak loxom ba tay ji ñu tollu ci war ko jébal ciabi di nuyu tamit mbolem sen njabotuk Serigne Touba gi yëpp ak buntu këru sëriñ Touba yëpp di nuyu tamit taalibey sëriñ Touba yi di nuyu jullit yi nekk ci senegal gi yëpp. jërëjëf jërëjëf euh, yoon wi gudd na yoon wi yàgg na waaye tamit am na ay hauts et des bas tey jii ñu tollu ci weer ngir mën a daloo euh, barab bu sell bi lan nga ñu mën a wax ak lu la gën a marqué ci jaar-jaar yi ak li nga xamante ni moom mooy chantier bi ak travaux yi. Wow, c'est eh, c'est vrai eh, eh, des hauts et des bas euh, le bat wolof la xam des hauts et des bas buñ koy tekki mooy ay yomb-yomb ak ay jafé, jafé. Euh, bo, ne bi, sëriñ bi moo ne ci kanam le ci le ci le pour finir, fêter doomu aadama daanaka nag bu ma la nëbbuwul wax dëgg yàlla jafe-jafe amu ci ndax jafe-jafe bu ci nekk sëriñ bee ko jànkonteel ba nga xam ni bii eh, dañuy jóg rek fu ñu jubal fu ne dafa mel ni ci coobareek sëriñ bi la bala nga xam ne lii moom lañ fay sàkku ñu fekk ko fa koo xam ni kii jamono gënoon na yàgg gënoon na mitti muy jumaay njaareem gënoon na yàgg gënoon na miti muy jumaay Touba te loolu lépp ña ko defoon dañ ko doon def maanaam ak mbégte ak enthousiasme ba nga xam ni bii xamuñu dure bi nga xam ni jumaay njaareem sëriñ bi mi ngi ko santaane ci kanamam moo moo moo ci kanamam moo teg xeer wu njëkk wi moo ko moo ko ubbi moo ko léemu te booy seet période bindi jamono liñ ko liggéeyee bañ ko tàmbalee ak ba bañ koy ubbi daanaka boo koy seet mel na ni jumaay Masalikul Jinaan moo ko gën a gaaw booy xool jumaay Touba nga xam ni sëñ Modou Moustapha Mbacké yàlla na ko yàlla yokk ngëneel yokk ko leer moom mi nga xam ni moo jiite njaboot gi bi ñu noppee gis sëriñ bi ci Zahir nga xam ni booba lépp jafe na nga xam ni la nga xam ni moom la jëkk a jànkonteeloon mooy fexe ba ñu sekteel ko jumaa ji fexé ba tamit ñi nga xamni ño xarañ ci liggéey bobu parce que bobu sénégalais yi mënuñu ko mu fexé ba yalla dimbali ko ak mbaxuk sëriñ bi ba mu am architecte bu ko def am tamit ñuko taxaw muy les conducteurs de travaux muy ñi nga xamni moy architecte ba moy entrepreneur ba yalla di ko dimbali ba tamit kay ya nga xamni ne yi yu jafé la won ca jamono jooju yalla pégal ko ko ba nga xam ni bii na mu ko bëggee la ko ame ndax tubaab bi def ko ni woon fii nga xam ni mooy diggante njaareem ak Touba suuf su nooy la am pour ñu def fi raay ñu def fi raay de fer booba amul tali te bu doon tali tamit matériel bi nga xam ne bii moo fa war a jëm chemin de fer rek ca jamono yooyu moo ko fa war xam nga loolu nekk na équation boo xam ne bii benn inconnu ngoog ñaareel ba booba jamono melul nii koppar yombul jafe na liggéey li ñuy liggéey jafe muy matériaux yi xeer dañ daan wër ay carrière booba nii ñu trouver basalte fii ak di ko trouver yeneen matériaux yi nga xam ni c'est à portée de main booba amul nii nga xamee ni bii ndox te mooy liggéey bâtiment te moo gënoon a jafe njéem ba léegi la am ay jafe-jafe Touba ci am ndox Masamaak ca jamono joo xam ne ji boo koy natt ak léegi juróom-ñeent fukki at la ba mu tàmbalee liggéey bi yu manqué touti mu diko liggéey def fondation bi ba mu taxaw mu dem bi Cheikh Fadal di ku doom bu wuutu sëriñ Touba nekk ci xilaafa gi ci mu tombe ak période guerre tombe ak période récession tombe ak période boo xam ne bii dañu sous domination coloniale sëriñ bi nekk ci bi mu jëlee xilaafa gi 1945 ba en 1963 nga xamni ni bobu nek na pratiquement ay at yu bare bare bare bare du fukki at ak juróom-ñett kon ñoom booy seetlu péripéties yooyu yëpp loolu moo gënoon a metti mo gënoon a te ils l'ont réussi te amuñu won moyen yi ñu amone juma ji boo xol ci ci ci envergure pak bi mo upp dimension ouvrage bi mo upp matériaux yi ñu soxla mo gënoon a moo gën a moo gën a bari embellissement bi tamit bari na ndaxte jumaay Tuubaa booy xool embellissement extérieur bi yëpp après Serigne Fallou lañ ko def mooy marbre bi ci ëtt bi ndaxte booba ëtt bi ëtt suuf la woon mooy revêtement bi nga xam ne bii revêtement mural la nga xam ne ñoo ngi ko tàmbalee woon ci Serigne Abdou Lahad ba ci ci yokk bi saali Saliou ñëw wodd jumaa ji nga xam ne yooyu yëpp ñun ñu boole ko ndoo lépp defandoo ko benn yoon ci jumaa ji mu am juróom-ñaari mën naa jàpp ni wax dëgg yàlla amul jafe-jafe liggéeyu Serigne Touba nag moo mel noonu c'est très grand c'est grandiose waaye nag Serigne bee ci jàppal boppam ba ñu def ko ci période bii ñu ko defee muy xaw a méngoog juróom-ñaari at yamu am ci dë ci àll ci ci ci Gabon ñu defal ko ci ab liggéeyam mu sottee nii wax dëgg yàlla bu amoon jafe-jafe bu tiire woon même en longeur dina jaadu waaye nag li ma la waxal rek. sëriñ bi boo jógee di ko liggéeyal mooy nekk ci sa kanam féetale fépp ba lépp loo xam ne lii war na waroon na mën a jafe ci yow mu yomb. jumaa ji ak jafe-jafe yi xëy na jumaa yooyu euh, xalifa bi mooy toog yor liggéey bi mu nekk bii nag daf ko xaw a décentraliser mu mel ni lépp dafa tegu ci kaw ay wag gi yu fay mbàkk yu dégg ci lu nekk euh, ban sentiment nga ci am tey jii bi nga demee ba ba jumaa ji egsi wax dëgg yàlla xalifa bi moo ko yor man yoruma ko. ndaxte jumaa xaalis moo koy liggéey li ma ci xalifa bi dox ak taalibe yi jox ko ko mu joxe ko ci jumaa ji loolu moo liggéey jumaa ji parce que man wax dëgg yàlla dama fe nekk jël xëy na jëmm ji ak xel mi waaye doole ji liggéey jumaa ji parce que ouvrier yi yenu ñii tabax ñii raax loolu xaalis moo leen di fay pour ñu def ko te xaalis bi xalif général moo koy joxe lu fi dugg lu ne moo ma ko jox ak barkelu yi nga xam yi ñoo ngi fii man ci talibé yi laa bokk lu joxe tamit sama barkelu la waye sama barkelu sëriñ bi la koy jox sëriñ bi moy maître d'ouvrage bi kon moko ko liggéey mbakki yu deful ludul nek fi manam ab surga wala sax planton bo xam bi day xol ak di wuti buma ma joxee ma dem wuti te wuti day yomb lool ndaxte bu fekkee ni certainement amna ci ay dépenses yo xamni xeyna xëy na ko loolu dafa mel ni addiye ju may jox sëriñ bi la bu ma voyagé wala bu may nangam wala ak yeneen ak yeneen waaye dara jafewu ci vraiment bu ma la bu ma la bu ma la waxee li nga xam ne mooy sentiment boo xam ni mooy am réellement mooy sëriñ bi daal féete nañu fépp ba nga xam ni bii yenn saa yi dinaa dugg ci barab bi sax dina ma xaw a jaaxal pour te ma jox la benn anecdote bi ñuy defar bi defar soror yi xam nga dañ ko def ci benn concept bu bees

mu mom dal daal fu na fa liggéey na Asie liggéey na Amérique du Sud ndaxte concept bobu manam noonu ñuy tabaxé coffrage glissant mom lañuy tabaxé four yi nga xamni ni it ñooy nekk dans les cimenteries wala four wala tube yi nga xamni moy yi ñi def tour de contrôle yi nekk euh, ci aéroport yi mais légui concept immeuble yi sax légui dañ koy def par coffrage glissant mom dafa ni souf si dal nim ko nungulo jaaxal nako néna musul liggéey fenn souf si ak bi nungul ko ni ba lepp lu mu paase day correct ba paré gawo, wow ba ba nga xamni du am ben jafé jafé xam nga luko seigne Cheikh Bombali tontu dafa ni ndax mas nga liggéeyal ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba mu ni déedéet mu ni ko li nga ko liggéeyal la tax souf si nugg la kon lepp day daal di dugg dans ce concept là mba nga xamni bi ni ci dugg les différentes nationalités les les différents corps d'état ñom ñëpp ñëpp bo setlo que ni wax dëgg yalla euh, damay laal bant comme li ñu wax je touche du bois musuñu fi am ben jafé jafé kon bon jafé jafé amu ci seigne Touba mbiram yépp day yomb sànna fin bi la dara rek xam nga na mu ko waxee woon ni mom euh, njariñ la lu andul ak ciono njariñ lolu nak mo refléter fi ben ciono amu ci xana di sante rek diko sante diko santati balaa ñuy aborder li nga xamanteni ni moom mooy inauguration bi ak matuwaay yi ngi ci jël euh, dafay am euh, fenêtre bu ndaw bu moo bëgg a ubbi ndax tey jii diggante démb ak tey dañoo gis am tubaab boo xamante ni daa tweeté wax ni daal euh, Massalikul Jinaan dafa mel ni c'est un monument contre l'Occident ak yu mel noonu te lu mel ni boobaak léegi dafa mel ne dafa commencé déranger ak yooyu ban ma ni woon sax duma ci tontu mais li nga ma posé woon sànq par rapport d'abord à moi-même li nga xam ne da nga ni li ma ci dégg ak liñ ma wax da euh, euh, koo xam ni bu sëñ bi ñëwoon léegi ni day takk jihaat mu wóor la ni man bu sëñ bi ñëwoon ni day jihaat ni ko yonent bi defoon sallallahu alayhi wa maa ngi lay waatal ni dinaa ci bokk dinaa jaayante dinaa dem ci jihaat ji te jihaat kat boo ci dem wóor la xamuloo ndax dinga nga delsi bakkan la laaj kon leneen lu ñu wax lu ne ay wax la rek liggéeyub sëñ Touba nag loo ci dégg na la jaral man lii rek laa bëggoon li ma bëggoon mooy na sëriñ bi am li mu bëgg te bu sëriñ bi amee li mu bëgg naa ci doon dara bu fekkee noon bii sax am naa benn pel boo xam ne bii wala benn benn benn tureel bu def suuf ma jël ko taf ko ci yàlla def ma bokk ci kon lu la ci dal lu ne wala loo ci dégg lu ne jig na la man wax dëgg yàlla léegi la ma benn waaye di woo di ma wax dama laa bëgg a balu àq ma ni ko man maa wala balu àq ñëpp jéggalu ñëpp parce que defuñu ko sax ci méchanceté dañoo jàppoon ni rek xëy na liggéey bi munuñu ci dara wala duñ ci euh, day day yeex wala ñu foogoon ci leneen waaye bu ñu xamoon ni ci nii lay demee te yàlla dina ma suturaal ci mbaaxuk sëriñ bi ba ma doon ci li ma ci doon ba man ko conduire ba mu egsi fii kon duñ ko waxe noonu kon man sama jëmmi bopp lu ma ci dal jig na ma maa ngi ci sant sëriñ bi bu baax a baax kanta tubaab boobu wax nag dama ni woon duñ ci tontu ndaxte moom xam nga communication dafa am dafa am ay paramètres yu bari moom xëy na daa doon critiquer wala muy noon yi nga xam ni yi noonu sëriñ bi lañu wala noonu lislaam faf mu def effet contraire ndax moom mi ngi siiwal ni Masalikul Jinaan dinañ ko inaugurer le 27. mi ngi ni def nañ ci trente millions d'euros ëpp na ko sax nag waroon na xoolaat wala mu laaj ma dinaa ko wax ñaata lañ ci def effectivement waaye loolu ñu ci def ñoom tubaab yooyu ñoo ko waroon a defal Serigne Touba parce que bu fekkee ni dañ ko décorer moom Serigne Touba de la Légion d'honneur wane ni Serigne Touba décorer nañ ko décoration boo xam ne bii musu ko nungu musu ko takk booba dafa mel ni xëy na moom ba muy jàng école wala il n'a pas apprécié leçon d'histoire ou bien il n'était pas brillant waaye bu brillant on xam l'histoire de la France l'histoire d'après la guerre 14-18 et au-delà même du ŋàññ communauté mouride wala muy ŋàññ lu ñuy defar Serigne Touba wala lu ñuy defar l'islam ndaxte bii France toblay ci ay jafe fait. Serigne Touba leen ñaanal c'est ngi lay waatal ci yàlla di la waatal ni bu dul woon Serigne Touba moom noonu mu tudd tey jii du ko tal ndax amoon na leneen lu dugg ci ñoom ba dominer leen Serigne Touba ko fa jëlee ñaareel bi bi tubaab yi soxlaa ku leen dimbali sëriñ bi moo jël ay sordaal yóbbu yebal leen ñu dem xeexali France ñu jël ci africain yu bari jël ci ay sénégalais ba fana ba finalement ku fa dem di africain ñu tudde la tirailleur sénégalais kon

ndax xam nañu kur Serigne Touba bi France soxla nga xamni dafa ce qu'on appelle la décote du franc français mu am la crise mondiale Sénégal Serigne Touba était le plus grand contributeur de l'Afrique noire et même de l'Europe parce que ci jamono yoyu Serigne Touba 500 francs français la jox yenen contributeurs yi nga qui ñu bari woni la ki ci

jëriñ xam naa ngir ah. bañ la tëye lu yàgg euh, ñu jublu nag ci li nga xamante ni moom mooy ubbite gi ah. muy le 27 euh, lan nga ci waaj ah lan lañ ci waaj ndaxte mbir mi day mbir moo xam ni daanaka mend mbir la rek wàccaay gi ciy waaj lépp ñoo ngi koy def ci ndigalu sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha moom lañuy ñuy jéem a dàkk bëggam rekk ci li nga xam ne lii yàgg naa waaj lu mel nii ndaxte bi ñu tàmbalee liggéey bi tàmbale ko ca jamonoy sëriñ Saliou mbakke ba ma fa demee ak Baye sëriñ Ngom di ko gaaral ni ko dañoo bëgg a teg xeer wu njëkk wi ci liggéey bi ca pàkk bu njëkk ba lani ni dinaa fa yebal Serigne taxaa ak njaboot gi ñu teewe ko sëriñ mu la yebaloon moom moo ñëwoon fii en 2006 teg si xeer wi fii bi nga xamee ni bii yàlla def na ci mbaaxam ñu jóge ci pàkk boobu ñëw ci pàkk bi fekk sëriñ Saaliwu ñibbi àjjana sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Fallilu moo ñëw fii ci pàkk bii nga xam ne bii moo ko visité ni ma pakk bi fii bi fii mooy pàkk bi ñëw fii teg si première pierre bi ànd ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp ak président de la république bi fi newoon muy le président Ablaye wadd mi nga xam ni moom moo ñu jox pakk bi ñu nekk muy soixante mille mètres carrés ñu koy gërëm di ko sant ca loolu mu defaloon Serigne Touba bi ñu tegee xeer wi Serigne Mountakha la def muy jëwriñ ji bi yàlla defee ñu teg xeer wi ñu teg ci tuuti sëñ Mouhamadou Lamine Baara Fallilu dem fekki way juróom yu baax yi Cheikh Sidil Mokhtar daa di koy wuutu bi ko wuutoo mu jël léppam doxale sëñ Muntaxa ak njaboot gi ak taalibe ni ko yaay sama jëwriñ ci liggéey bi dinaa ci toftal Cheikh Mouhamadul Bachir ak yu Fay booba ba tey kon ca njaalbeen ga ba fii ñu toll mun Mountakha moo yoroon liggéey bi moo doon jëwriñ ji yàlla ci mbaaxam ak kattanam e jël sëñ Sidi Maxtaar mi nga xam ni juróom ñaari at la fi nekk yoo xam ni sans répit di liggéey ba batiment bi taxaw ba mel nii mu mel yàlla ci mbaaxam wàcce ko mu dem fekki way juróom yu baax yi sëñ Mountakha dese liggéey bi nga xam ne moo ko yoroon yor ko fii

ba ñëpp a ngi fàttaliku keroog bi ñuy posé micropieux bi mujj ci micropieux yi fii la taxawoon wax ni micropieux bu tey day suufus ndakaaru si maa koy layal ndaxte naqar wu mu amoon biñ fi indee sëriñ bi ci ñaari guddi ndakaaroom yooyu ak xat-xat yi ak jafe-jafe dina am mbégte mu ko raw bi ñu jëlee lii teg ko ci su kaw suufus ndakaaru loola nag moom la ñuy ubbi tey nga xam ni lépp luñ ci def war na nañoo def loo xam ne lii dina tax suñu naqar ba ñu amoon ca biñ fi indee suñu sang bu tedd boobu suñu yaakaaru tey yàlla muy cheikhul xadim tubaab yi def ko ci ak tooñ indi ko fii interne ko fii ci cellule boo xam ne bii matul deux mètres carrés tey jii ñu koy defal jumaa joo xam ni aire de prière bi rek un hectare la à l'intérieur ñaari extrémité yi bu ci nekk nekk deux hectares et mi mu nekk soixante mille mètres carrés kon lii war naa fàttali lële événement bu mel noon nag boo ci jubee dara tuutiwu ci dara réyu ci lu ñu man dinañ ko def dinañu def li ñu man dina ñu def li ñu mënul ndaxte dimension bi moo ni toll waaye léppit nag ñu teg ko ci sunna ak ci lislaam na mu ko waxee rek tasimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati ndax buñ ko defee ba sëriñ bi ñëw ba ubbi ko

ak waajtaay yi ci wara def nga xamni li muy événement ubi Massalikul jinan doyna ci ci ndax te fu mourid nek serigne bi woona la dina wotel bopam. nga xamni danaka ak magal la mu ñu waje waajee touba serigne bi baaxe ñu ci jëmmam gi ni dina fi ñew le 22 mu tombeek dimanche le 22 bi mu fi ñew ba le 27 bi ñuy ubi jumaa ji bés bu nekk am na lu ciy xew ci bëccëg ci tàkkusaan gi ak ci guddi gi nga xam ni dañuy daal di nekk en feu continu ba ba ñuy ubbi suñu jumaa guddi ga tamit am na cérémonie le lendemain tamit am na cérémonie ba sëriñ bi ñaanal ñu dellu ca barab bu tedd ba muy Touba kon wàccaay wi bari na def nañu ay commission def nañu li nga xam ni moom la ñu war a waajale barab bi bir juma ji li ci dess ñoo ngi fomp ak eh, yu ndaw ndaw yi nga xamni mo ci des ñoo ngi kocc koccal di ñaan yalla na fi pare bok légui te yaakar nañ ko tapis yi nga xamni moy mooy tapis jullikaay yi barki demb la joggé feulé turki dama doon wax sax kérok di wax fi yont yalla mohammed gane Adine waye fi yont yalla ibrahim gane adina fa lañ gasak tan la ak charloufa nekk ci frontière u Syrie ak Irak ah frontière u Syrie ak Turquie à à peu près soixante cinq kilomètres de Alep fa la usine bi nekk ñu koy tuddee Karar Carpet moo ñu defal euh, tapis yi tapis yi pare na yónnee nañ ma vidéo bi sànq rek embarqué nañ ko mi ngi ñëw loolu moo ci des bu ko defee ñu teeru suñu sëriñ def suñuy suñuy suñuy suñu cant def suñu kendal ubbi suñu juma ba pare teg ko ci sunna di ci woo ñëpp nag xam naa ni foofu sax dama koy dagg ndaxte man waruma woote sëriñ bi moo war a woote te sëriñ bi war a woote dina woo ñi ko seqal invité leen ñun ay surga lañu fii lañ koy xaar bu ñëwee lu mu ni ñu def ko rek ñu ànd ci waaye nag maa ngi ciy invité population bi yëpp di ci invité taalibe yëpp di ci invité jullit yëpp ndaxte jumaa ji patrimoine la c'est un patrimoine national Bon, xam ne ñun ñëpp ñoo Notre film ndaxte que mu nekk kenn mënatu n'est que nekk na au cœur de Dakar kon daal constituer un un mobilier urbain Notre les cités urbaines dañuy am du mobilier am seeni monuments, am seeni jet d'eau mais monument ouvrage bu mel nii mi ngi doga am Dakar ba nga xam bi bii mën na dimbali sax euh, état bi bi nga xamné bi amna tourisme tourisme religieux lu à l'image de la Mecque ñuy dem dañ fay def tourisme religieux dem al Khots, amna ñuy dem ci jakay amna dem tamit ci à Abu Dhabi ou bien la mosquée bleue de de de Istanbul alors ou la mosquée Sophia donc dina rentrer dans ce cadre là mu nek lo c'est un patrimoine partagé partagé boo xam ne bii jumaa ji dañ ko def ngir mu nekk néegu yàlla defuñu ko pour mu nekk une exclusivité confrérique defuñu ko pour murit yi defuñu ko pour tiijaan yi rek defuñu ko pour xaadir yi defuñu ko pour laayeen yi kuy wax ashadu an laa ilaha illallah sa wàll ngi ci jàkka la jàkkay suñu borom la ñu defal ko fi tudde ko jàkkay Serigne Touba mu nekk fii ci Masalikul Jinaan ñëpp lañ ko defar di ci sant ñi ñu ci jàppale te it di ci tudd président de la république ni ñu président lay Wade di joxe pàkk bi président Macky Sall noonu la ñu dimbalee fii parce que lu mel ni nit mënu ko organiser boppam li am ci réew mi muy ay xeexewu diine moo xam-xam di xeexewu diine l'islam la wala yeneen diine bu ci ne état di ciy dugal loxoom ndaxte bu dee kaaraange ñun amuñu kaaraange état moo ko am bu dee lii ñuy tàmp ay làmp état moo ko moom moo ko yor bu dee lii indi ndox mi kazalika naka noonu bu fekkee lii dawal la ci jaww ji lépp état la walbatiku nag président de la république ni mooy ñëw présider ko boppam invité ay naataangoom yooyu ñëw di ànd ak moom ak ay autorité de marque ba pare rax ci dolli lii ngeen gis mu wër jumaa ji mu ay tali ak i làmp nga xam ne jar na lu ko war a jege juróom-ñaari milliards mu def ko ci moom it amal nañ ko cant amal nañ ko ngërëm ndax ñun taalibe Serigne Touba lañu du ñu gërëm ku defalul Serigne Touba dara waaye ku defal Serigne Touba dara dinañ la gërëm dinañ la sant ndax goree di wuñu ndaxte ku goree di moo ki nga xam ni du gërëm ñoo ngi koy sant di ko ya wax yàlla na ko yàlla defal bëggëm waaye nag cant googu yëpp ñu wëlbatiku ñun muy cant genn koo xam ni kenn rek lañ koy sant kenn lañ koy defal kenn la ñu yaakaar muy Serigne Touba ndax la sëñ Touba sëñ waxoon cant ak yaakaar defaluñ ko kenn lu seriñ Serigne kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. di wax ni ñun ñëpp nañ ko waajal laajal ko dans la sérénité ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci dëkk bi ñu ubbi seen i kër jël ganu Serigne Touba yi ganale leen defar kër yi yaatal ko ndaxte lii fête la pour tous les Sénégalais fête la pour euh, jullit yëpp ndaxte lii ñëpp ko bokk ndax bu ñu nee allahu akbar ubbi buntu yi ku neex dugg kuy jullit bëgg a julli boo ñëwee da ngay julli ñu la ni foo dëkk duñ la ni noo tudd duñ la ni loo doon kon bon lu mel noonu bu amee cim réew ñëpp ñoo ko bokk kon ñoo ngi ciy woo ñëpp di wax ni nañ na ñëpp na ñëpp na ñëpp defar dëkk bi yaatal ko gan yi ñëw sëriñ bi ñëw ñu teeru ko ci jàmm mu ñëw ubbi jumaa ji léemuñu dellu ca Touba ak jàmm ñu des nag mu nekk jàkka joo xam ne dañ koy ubbi pour jaamu yàlla nit ñi di fi ñëw di fi julli waxtu yu juróom ak di julli julli ajjuma ak it yi nga xam ne yi mooy yi nga xam ne mooy am ci ci at mi kon daal Jibril loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy li nga ma doon laaj bu ñu demee nag ba ca appel ba xëy na ñu mën a def appel bu gën a yaatu bu ko defee mu nekk appel sectoriel ak ñi ñuy woo ak ñi nga xam ne ji ay taalibe lañu waaye woote bi dafa am beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen physionomie mooy nit lu mu bokk du xaar ku ko ci woo lii ñun ñoo ko bokk jullit yëpp ko bokk jëlale naa Sénégalais yi mais jullit yëpp ko bokk nit nag lu mu bokk te yaakaar ci ndimbalu yàlla yaakaar ci tuyaaba yaakaar ci war cee liggéeyal yàlla warul a xaar ba du ñu koy woo dafa war a ñëw ni lijj ci biir lu mu war a def mu di ko def rawatina ñi nga xam ne nag seen i mbir yëpp mu ngi aju ci sëriñ tubaab muy taalibe mu yi kon maa ngi leen di woo di leen gërëm di leen sant. jërëjëf jërëjëf jëwrin xam naa bëggoon nañ waxtaan wi gën a Euh, émission daara ji dafa dafa war a ñëw ñu ngi lay sant bu baax ci disponibilité bi waaye ñaata ñaata ñaata nit ngay séntu. Euh, addina bi ñëpp ñëpp laay sent kon ñu ngi leen di xaar fii ci Ndakaaru ah. incha allah kon mbokk yi jërë ngeen jëf mu doon entretien exclusif boo xamante ni dañu ko séqoon ak jëwriñ Alaaji Mbàkke Faye mu may ko télévision Touba TV ak jàmm amiin jëwriñ ñu ngi lay sant bu baax di ñaan tamit Serigne Touba fay la ci liggéey bi yàgg ñi ngi àndal amiin bokk lé woon daal ci ku tabax jumaa ah. loolu lépp yàlla na dal ci kaw murid yëpp amiin bi yaa sedd sant bu baax di leen gërëm mbokk yéen it ñu ngi leen di jaajëfal te di séntu ñëpp incha allah ci ubbite gi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu